espace gars yi mën a dox waaye espace may leen di dox normal waaye ndànk-ndànk dem leen teel a si biir wuyu ma dem leen teel a si biir ndànk-ndànk dem leen